ndamal julit yaa ngi Masaalikul Jinaan sagub murit yaa ngi Masaalikul Jinaan bismillahi mina seytaani rajim bokki Sénégal bokki diiwaanu njaareem bokki réew mépp mën nañ ko wax xew-xew bu mag bu am solo dellu si waat na muy guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gàmmoo nga xam ne samedi 9 lañ koy def ko daan defee naka daayira bu sell boobule nga xam ne yàlla nañ bi ak Serigne Touba rek a leen ñor ci ci la ñuy xëy guddeeg bëccëg seen jawri nag nekk nit ku baax di nit ku yaru ko am teggin te it fooyewut yoonu yoonu Serigne Touba muy sëñ Babacar Ka mi nga xam ne mooy seen président ñu fas yéene nag def ko nañ ko daan defee naka jekk rek am ci pas-pas am ci fulla am ci fayda jiital Serigne Touba di daayira boobu nag ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant. ci ni nga xam ne jox nañ kilifteef nag sëñ Mamor Mbacke eh, ibnu sëñ Muntada Mbacke ak soxna ma Mamar Mbacke bintu sëñ Fallu xanaa duma def lu may rek kaddu gi ma daal di koy jox sëñ Babacar Ka mi nga xam ne mooy président bi di jawriñ ji di jawriñ boo xam ne nag am na ci fulla am ci pasteet te ànd boo gis déggoo moo ca gën a am solo te déggoo bu amee juboo dafay am te bu juboo bu amee ànd dafay rafet ñu déggoo nag ci yoonu Sëriñ Tuubaa juboo nag ci yoonu Serigne Touba ànd ànd bu ci yoonu Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadimal Moustapha kon daal jërëjëf daayira Ansaaru Xadim kon nag sëñ Babacar kàddu noonu euh, ka aousu billahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi bi saani ila yawmi diin aw naka yaa muhiin wa bika nastahiin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu ci turu Serigne Cheikh Tedd Mbacke bi nga xam ne moom mooy suñu kilifa ñun ñëpp di kenn koo xam ne ki ko xamul Cheikh Modou Mourtada xam nga Serigne Cheikh Tedd lépp loo xam ne lii sëñ Cheikh sëñ Cheikh Modou Mourtada Mbacke mas na koy sos ci këram gii maanaam fokk sëriñ Cheikh Tedd Mbacke teewe ko mu jox ko ci cër ba mu ko war a jox kon nag ñun ñëpp mooy suñu kilifa ñu ngi wax ci kàddoom ñu ngi wax ci kàddu sëriñ Mamor Mbacke mi nga xam ne mooy taw Cheikh Modou Mourtada di wax ci kaddu ki nga xam ne mooy soxna maam xari mbar Cheikh Modou Fadel di kenn ci jawri ñi liggéey bi di nuyu bokki jullit jep di len siyaare li tax ñu di leen nuyu nag di leen siyaare yi tamit ci turu ñooñu yaakaar naa ne bu ñu ko waxee ñëpp dinañ xam ni nii rek la war a demee ndax kenn ku ne xam nga ni Cheikh Maodo Mourtada euh, si euh, mooy mooy Serigne ci jamonoom ñun waa Bambey ñun rek moom ñoo am li ñu amoon ndax xam ngeen ne doomi Serigne Touba yëpp ñu nga daan gàmmoo kenn ku ci nekk Touba waaye moom nag suñu borom féetali nu ko nun waa Bambey mu dikk sanc fi kër sanc fi ab école def fi jumaa waaye yàlla sunu boroom dogal at mi fi sanc see rek dëkk fi dëkkal fi ab taawa muy Cheikh Modou Cheikh Mamor la daal di woote gàmmo woo mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci dëkk bi bi wootee mag ñu baax ñi nekk ci dëkk bi ñoom ñëpp ñu wuy si ko mu digal leen ñu samp guddi laylatu mawlidu nabi loolee sunu mag ñu baax ña ñëpp àndoon ak moom ca loola sunu bàyyi sunu maam yi ñun ñi ñu di ay tu tànk daan ànd ak ñoom ca loola ba ñooñee Anda ak Cheikh Modou murtada liggéey Seydina Mouhamad ci guddi leelatu mawlidu nabi gi nga xamne motax ñi wax yalla suñu borom dogal ñom ñepp kenn ku ci nek sam mat ñu bayyi ñu fi ñun ñi di seeni dom ak seeni set ak seeni jarbat te nekkon ci daan and ak ñom ci liggéey ñun ñi nak legi ñoy tok fi ci dair ansarul khadim bi nga xamne Cheikh Modou murtada moko ngir ñuy saytu gamogi, gamogi nak, gamogi nag la waye gamu gi gàmmoog talibi seigne touba yebul ko kep ku nek ci dekk bi di mag di ndaw di ko di jigen li ci war ñi tok fi di waa daayira ansarul khadim mo la ci war ngeen xam ne gam lu ci ab def manam lu ko ci muko ci àddina ndax seigne touba kat wax na ne kep ko xam ki da nga def sa benn deureum ci gam manam bu yowmal khiyamé yalla dina la atté ba nga melni ña badar ña doon xeex ak ñi doon xex xaybar te yooyu xeexkat képp koo xam ne kii xex nga ko seenum aramal na sawara képp koo xam ne kii tamit nga màggal guddi gam ci sunna xam nga ne bu la sama borom fee dootoo soxlaal dootoo soxla dara ci teraange àddina waaye dootoo soxla dara ci njëgal ak sunu borom ci ci ci ci ci yomal xiyam ndax doo am lenn loo loo fa ragalati ndax sama borom dina la ko defal tawfiq yoo xam ne ji dina ko fi ñor loolu nag tax na amuñu droit nun toog fii te yëkkatiwuñ suñu kàddu ba ñëpp dégg ko xam ne ci li nekk nii ndigal la lu bàyyi koo ci Serigne Touba ndax Cheikh Modou Mourtada mooy Serigne Touba. Hmm. waaye bi mu fi nekk ànd ak sunuy baay ak sunuy maam bañ ba ñu fekk Serigne Touba yi tamit dafay bàyyi taw bu baax Maam Mor Mbacke Maam Mor moom mu nag moom moo jëlaat mbir mi daal di daal di koy jébbalaat am kuréel Ansaaru Xadim ñooñee nag ñooy toog fii di woo mbooloo mi kenn ku ci nekk mag ak ndaw góor ak jigéen ndax ku ko mënoon. fuñu défé gam yaay génn ci sa poste def lépp nak euh nañu xamné ne li ñu xaj kenn ku ci dëgg nga caa def sa wal dëgg yoonent bi kat mo tax ñun ñepp ñu bind ñu sëñ Touba néna na fa ma nuy mawlidina fa woni nuy mawlida babil uda fa yu asabun khada lo rek doy kep ko xam da ngay màggal guddi juddug sayyidna Muhammad te moy buntu bi nga xam moy buntu buntam njub yàlla bu ëllëgee du régler say problème te ku yàlla rek say problème bi di nga xam ne yàlla bu la rek say problème am na fu mu la jàppe yonent bi nag liggéeyal ko dong moo tax yàlla mën a gëmm lépp dootu xool sa dara kon nag lii moo nekkoon kàddu yi nga xam ne doon naa ko yëkkati li ci des ma bàyyi koog sëñ Malick Mbodj mi nga xam ne lépp loo xam ne lii war nañ ko wax luy wéyal gàmmo gi moom mii ak sëñ Mbacke Dia incha allahu rabbi ah, dinañ ko dinañ ko wax nam nañ ko war a waxee su ko defee ñëpp xam ne woo bàyyiwuñ fenn ku di bilit ci bokk ku di bi ci nga bokk asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëñ Mamour Mbacke yàlla fi yàgg te wér sunu maam xarit Mbar yàlla fi yàgg te wér jërëjëf waaw jërëjëf sëñ Babacar ci wax ju rafet jooju nga xam ne wax nga ko di jawriñ boo xam ne jawriñ bu am solo la euh, ci li nga xam ne moom lañ ko dénk euh, ci wàllu yoonu Serigne Touba surtout daayira Ansaarul Xadim bi nga xam ne wax dëgg yàlla day ñoom li leen ñor rek yàlla yonent bi ak Serigne Touba dong moo leen ñor kon nag euh, gannaaw wax ju rafet jooju nga wax mu am solo dañuy daal di walbatiku nag jox beneen jawriñ nag sëñ Malick Mbodj bi nga xam ne mooy bis président bi ci daayira bi nu jox ko kàddu gi moom itam mu am ay kàddu yoo xam ne dina ko sànni jëmale ko ci guddi gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Malick kon kàddu kaa ngoon waaw auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim sant suñu borom subhanahu wa taala di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di yeesalaat suñu jubal ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di sant maam Cheikh Ibrahima Fall di fas yéene soobuwaat ci liggéey bi nga xam ne ni ko sëñ Babacar waxee léegi gàmm gi Cheikh Amadou Moutada moo ko sosoon fii si Bambey daan ko taxawee ak mag ñi nga xam ne tudd na leen sànq te suñu borom def li ko soob waaye mu am koo xam ne kenn la woon ci ñun muy Ahmadou Babou bokkoon ci commission yi nga xam ne liggéey bu am solo la daan liggéey ci liggéey bi bu yàggut rek bi ñu jógee gannaaw bu ñu jógee màggal teg ci ñaari fan la wàcc moom it yóbbu ko Daaru Salaam kon ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla na suñu borom defal tawfeex foofu ñu nekk kon nag dañuy woote rek di soññaat suñu bopp di soññ te bokk taalibe yi surtout jëm ci daayira fédération sopp Sëriñ Fallu yi nañ daan taxawee ci bisu gàmmu gi nga xam ne dañ daan dajale seen i addi yi di ko indi ñu ngi leen di soññ kenn ku ne la nga daan def soo ko mënut euh, yokk na nga fexe ba la nga daan def bu mu wàññeeku Euh, boole suñ doole boole suñu kàttan ak suñuy xalaat moo tax muy dem ndax dama wax sànq ne bu fekkoon ne liggéey bu kenn nit di def la sëñ bi du ko woote mën na koo defal bopp waaye bëgg a defal ñëpp taw feex kenn ku ne jël sa ñaq dugal ci liggéey bi te guddi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ku nekk xam na ne képp koo xam ne jël nga sa ñaq def ci suñ borom dana la ci dencal ay xéewal yoo xam ne ëllëg boo ko gisee da nga xam ne yàlla euh, mënut amut du ñemewul bor dafa am dafa mën a fay tax ñuy soññ suñu mbokk taalib yëpp di mu soññ mbak mbokk jullit yëpp tey wax ne liggéey bi euh, buñ ne gannaaw suba la daayira tasu subaan bi nga xam ne suñ taala siise ñoom ñoo koy jiite ñoom ñoo daan ñëw fii ànd ak yeneen mbokk taalibe yi ñu set setal kër gi ak li ci biir waaye dañuy soññ itam képp koo xam ne rek am nga daayira ci dëkk bi lépp loo xam ne liggéey bi ñu war a def ci kër gi la ñu ngi la fi woo ndax ñun ñëpp ñu bokk taxawee ko soxna Mari Diop mi nga xam ne moo féete ci waañ bi ñu ngi koy ñaan moom it mu soññ ñoom ñi nga xam ne ñoom la ko seqal waye ñun au passage dañ koy ñaanal bu baax ndax mom Pastef gi ci am ak taxawaay bi mu ci am bu ko ñepp amoon gam mhm. gu yaakar naa ne lépp dina jag mo fi njëkk mo fi muju mhm. te du xaar ku ko soñ mhm. kon nak soxna Mari Diop yaak sa mbolo ñu ngi wax ne ñu ngi leen di xaarat ci taxawaay ba nga xamne mom ngeen daan taxaw waye nar sekk itam mok euh, señ euh, Cheikh ñang Cheikh mom tewna euh, ni ngeen daan def lepp lo xamne mo jëm ci matériel logistique digënté bâche yeeg chaise yeeg dal loo xam ne daal mooy yeen ko daan taxawé te gis nañu itam dolli ngeen ci loo xam ne yaakaar naa ne gën na taaral gàmmu ndax léegi seen kuréel googu da ngeen far def sax mu mel ne daayira la ci biir daayira ndax yéen a ngi dajale seen addiye bu bés ba jotee da ngeen ut seen i xéewal indaale ko ba pare yore liggéey bi kon yéen itam ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan ngeen gën a yàlla gën a dëgëral seen taxawaay waaye ñi nga xam ne itam ay mbokk taalibe lañ te nekk ay ressortissants Bambey moo xam daayira ñoom Cheikh Niang bi nga xam ne ñooy jógee Mali chaque année di ñëw di ñu indil ay matériel yu demee ni ki basang ki chaise ki addiya loolu lépp at mu jot nañ fi dajal takkoo takku indi ko jàpp ñu ci gàmm gi ñoom itam ñu ngi leen koy fàttali waaye di leen sant itam te xam ne seen taxawaay rafet na waaye bés bu leen sëñ Tuubaa fay dana xam ne sëñ bi am na fay kon itam ñi nga xam ne ñoo nekk dakaar ndax at mu jot danañ def ak commission dem Dakar ñi nga xam ne doomi Bambey lañ te féetee ci gox boobu dañuy daar ci ñoom lépp loo xam ne am nañ ko ci teraanga ñu jox ñu ko loolu yëpp nag bu ñu ko boolee bu ñu ñëwee boole ko li daayira ansaatu ansaaru xalim xaddim dajale moom la ñuy jël ak ñi nga xam ne kenn ku ne def nga seen ñax taxawoo ko guddi ndax li ma wax rek am na bés sëñ Mamoor fii ci jumaa ji ñuy dajaleel euh, at yi nga xam ne at mu jot Baye Ibrahima moo ko daan woote mois de février la daan doon wala janvier ñuy dajale buñ ci am enveloppe yu jëlee ci dëkk kaw yeeg yi wër Bambey buñ ko dajalee ba mu mat ñu def ko ci jumaa ji waaye loolu at ba at lañ ko daan def am daayira boo xam ne dafa jóge woon ndàngal ma jëwriñ ja wax ak sëñ Maamoor ne ko ñun de amoon nañ yéene ñun rek ñu defar jumaa ji kàttan gee ko mënul waaye buñ ko mënoon danañ ko def ca la ko sëñ Maamoor tontu ne ko bu fekkoon liggéeyu kenn nit la sëñ Murtada defal ko boppam waaye na ngeen xam ne eh, kenn ku ne da nga ciy dugal sa ñàq ndax ëllëg ñu xam ne la sëñ bi woote woon la sëñ bi santaane woon def nga ci ne def nga ci Pastef sëñ bi buy fay fayaale mhm. te dañ ne kat sëñ bi kum nar a fay du la liggéey loolu soxna Bambar dégg naa wax ko ay yoon yoon kon nag woote bi daal loolu la sëñ Allé yéen ñu ngi leen di ñaanal di ñaanal euh, waa presse bi ay Bambey TV euh, gox bi FM euh, Bambey FM yéen ñëpp at mu jot su liggéey bi jotee kenn ku ne da ci def si yéene def ci sa liggéey def ci sa ndimbal ni ngeen ñëwaate tey def liggéey bi yaakaar naa ne bésu gàmmu gay itam ni koy doxalee. kon nag ñu ngi leen di sant bu baax a baax di di di di leen gën a ñaanal yàlla na taxawaay bi yàgg yàlla nañu yàlla defal taw di ñaan sëñ Babacar mi nga xam ne suñu mag la. te liggéey bi lu ci bari moom mën nañu jubanti waaye daf ñu seetaan rek ñuy def waaye ak mbaaxam ak oyofam rek tax mu di ko def ñu ngi koy ñaanal yàlla ko yàlla dolli kattan yàlla na yàlla may ko wér ndax kat mission bi nga xam ne yore na ko ak wér ak kattan gudd moo koy mën tax lépp yàgg yàlla ko suñu borom defal ndax dafa doon euh, liggéey waa Kayen daf ko yore nekk ci euh, ansaaru xadim jiite ko booleeg dëkk bi lu waay soxla woo ko kon nag ku mel noonu nañ ko ñaanal yàlla na taxawaayam waaye sëñ Cheikh Tall yàlla na ko yàlla defal jàmm defal ko mu gën a yàgg suñu kanam ak soxna maam Xarim Mbàkke xam ne daayira bi maanaam ci ci xalaatam lañ ko sosee sëñ maam Mourtala ko tur bi ñaanal sëñ maam Mor Mbàkke mi nga xam ne soxna si mooy mooy ambassadeur bi moo koy toogal lépp loo xam ne waroon na ko taxawee soxna si mu koy taxawee kon daal yàlla na yàlla boole jàmm amiin yàlla na yàlla defal tew tawféex bañ fekkee ko jàmm liggéey ko nam waree te yàlla defal ñu ci ndam bu sëñ bi bëggee rek ñu bëgg allahumma salli ala sayyidina jërëjëf ne eh, wax am solo da ngay yar wax bi ba mu yaru nga jébbal ko mbooloo mi waaye balaa nga mën wax sax da ngay am yar ak teggin ngor ak jom ak muñ ak me dañu bok ndey ak mais eh, yar mooy seen maam mhm. loolu dafa am solo xanaa nag duñ def nag lu may nag eh, ne damay ram tuuti rek mhm, mhm, waaw jege ji sëñ Bakke Dia Ndiaye demal waaw ma jege sëñ Bakke Dia moom itam nga ne mooy bi nga xam ne mu am solo Euh, kon nag sëñ Mbàkke dégg nga li sëñ Babacar wax sëñ jawrin dégg nga itam Malick liñ ci to tolli yow mi nga xam ne yaay coordonnateur ak yi ngeen àndal yëpp mboolem kuy membre daayira bi rek euh, ci yar ak teggin ak fulla ak fayda ñu bari ñaanal leen de ñu bari ci lii nga xam ne yéen a ko yëngu jëmale ko ci yoonu sëñ Tuubaa kon nag Mbàkke euh, coordonnateur kaddu gaa noonu auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim bàyyi ale li nga wax noonu la rek ndax lii moom euh, duñ ne gulet wante mission la mission nag boo ko yoree feek yaa ngi dox ci kaw suuf wàcce gu la dañuy ñaan kay yàlla nañ suñu borom kattanal dooleel ñu ba lii ñi nga xam ne ñun ñoo ko yenu mu oyof ci suñu kaw euh, ni ngeen wax ci sëñ Babacar li mu wax ak sëñ Mali lépp noonu la wante mbir mi itam bis nii lañ ko bëgg a tërale bu ñu xëyee juróom waxtu ba jàpp fukki waxtu ci la wa daray kamil di wàcce kamil fi ci limbu takku ci keur seigne mohammed murtada bi bu ñu jàngee ba desul lu jul jang xatm ba fofu la xaar ba seigne seigne Mamour murtada ñew digënté 11h japp 13h manam digënté fukki waxtu ak ben japp ben waxtu ci bëcëk ci lañuy ubi ziar bi ba lañu ubi ziar bi nak ci la seigne bi di jang xatm bi bu ñu ziar bi mbolo mi talibé yi fep fu waay bawoo ñu commencé ziar euh, sangu tedd bi bu ñu ziaree ba ñaari waxtu ci bëcëk ci lañuy daldi bayyi dem julli bu ñu julee ba pare def yi fi njaayeen maanaam xewlu bu ñu xewloo ba pare wéyalaat ziar bi dinañ wéyal ziar bi ba juróomi waxtu ci bëccëg bu juróomi waxtu jotee nag ci la waa ansaaru diin diin ñoom ñooy def benn conférence conférence boobu nag euh, ñi ko seq mooy oustaz Abdou fay bu Refan ak euh, Serigne Ibrahima Ibrahima Gueye ak imam juuf mi nga xam ne mooy suñu imam fii ci jumaa ji ñooñu ñooy ñooy def conférence bi bu ñu wéyalee conférence ba timis passé ci la ñuy ñëwaat nag ci bâche bi cette fois euh, bi nak dafa am soppite. manam hmm. li jar fukki waxtu juróom-ñetti waxtu ba fukki waxtu dañu ci lañuy def légui cérémonie officielle bi. Hmm. officielle lool nak lu bess la ñuy nak euh, soñu bép autorité bép euh, kilifa aada kilifa dine, ak talibé yi fép fuway bawo ñu japp ni légui cérémonie officielle bi sa fonté bi nga xamné ne bi dina ko fonté ak ganam yi ak wa bambé ñu koy japp ci juróom-ñetti waxtu japp fukki waxtu loolu buñu défé cérémonie officielle bi ba paré ku ami gan dang koy wara téral ci lañuy yobul len ci réception bi manam digënté fukki waxtu ba fukki waxtu ak ben ci lañuy def réception bi buñu paré paree réception bi nak dugg ci guddigi nak guddigi nak gi né dugg ci xel day japp manam ku wax sang sek sang moy jang kat bi nga xamné mo nek bambay nga xamné ay atangi ni ñuy and ak mom muy jang muy doomi bambay sang sek dina jang bu jangé ba guddigi xaj ko xamné nak ne lay dox ba tay muy Abdoulaye Diouf bu kaolak Moutala moñu bolé won ak mom Moutala koy tam mu top ci ginaaw Mamor Mourtada and ko ak ñun moom itam bu guddi gi xaajee mooy daal di jël di jang di jang bu bët set bu bët setee andi matériel bi défar lépp ba guddi gi jag ñu taxaw and ko ak ñun yóbbu bagage yi defaraat lépp ba nga xamné sang bu tedd bi nga xamné motax ñi def and ak mom ci guddi gi sëñ euh, Seydina Mouhamed muy sëñ Mamor bég comme niko malik Malick bu bëggee rek ñun ñu bég fofu itam soññe rek lañuy ñuy wax mante sëñ bi limuy wax ku ko déggul foog naa ne yow dégo dara ndax néna mom ñun li ñu ciy dox mom neena loolu la ci dox manam ñun dañu sas mom itam dañ ko sas ndigal lañuy ñuy mom itam neena ndigal lay wéyee ndax amu ci lu muy sét amu ci lu muy def amu lu muy ji donc loolu bu ko talibé déggé ñuy wa Bambey kon war nañu taraf lu way wat lepp lu ñu lu way am pour jëmal euh, guddik sëñ euh, na ko jël ñu jëmal guddik kon ñu ngi wo ñepp di sant ñepp wa Ndakaaroo fep bitim rew fu way joge rek ñu lay sant di la gërëm warahmatullahi wa rahmatullahi taala jërëjëf euh, sëñ babakar jërëjëf jërëjëf sëñ Malick Mbodj jërëjëf sëñ Mbacke Dia alaaji Mbacke Dia alaaji Malick Mbodj alaaji Cheikh Babacar Ka euh, yan nañ ko def ay gàmm yu bare bare bare ba ci dara yonent bi barke Serigne Touba ñu ngi sant ñëpp nag mbooloo mi mbir maa ngi noonu mbirum gàmmu gaa ngi noonu mbirum daayira Ansaarul Xaadim a ngi noonu ñu ngi sant bu baax di ñaan sëñ Cheikh da Mbacke yan na ko fi yàlla bay bi jay si sëñ ma Mamor Mbakke na sëñ Murtada Mbakke yàlla ko fi yàlla bàyyi moom itam ak soxna Mambar nga xam ne wax dëgg yàlla jàpp na ci yoon wi jàpp na ci daayira bi yàlla na ko yàlla fayal bi jaay see dudd mbokk yi lii moo doon waxtaan wi nga xam ne waa daayira bi waxtaan nañ ko jëme ko ci gà gàmmo gi nga xam ne mooy guddi yonent bi sallallahu alayhi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ma salli ala sayyidina moom jërëjëf jëfati